bon dama ni woon sax dootuma tontooti les imbéciles de premier rang parce que waykat bi way na ko te muy dëgg seuls les imbéciles ne change pas waaye des fois da ciy baax mbalit buy xasaw xunn nga tëj ko hermétiquement ngir mu bañ laa sonalati ndax xet yow <laughs> man mii tuuti mii jomm naa sax di tontu ñenn ñi Astaman ak Barthélémy Diaz ma wax la ni yow chose bii nii individu bi dara lu Barthélémy Diaz bi mu doon sol 30 ans ci ginnaaw moom yi mu doon jàngee ecole dàll yooyu moo la gën te xamutuma sax dàll yooyu fu mu nekk mais bon xanaa ma sànni la tuuti kàddu rek di la wax ni Barthélemy Diaz du sa moroom yamoo ko fii catuwe yow nag moom tàmm nga yi tàmm nga wax ju ñaaw ndax gémmiñ guy nàcc du wax jàmm tàmm nga ko wax nga ko kilifa yëpp kilifa yëpp nga takse ci wax bu ñaaw mais nag xam nga rek yarin moom ndeysaan dafa baax ci ci ci ci doomu aadama boo amul éducation de base nii rek nga mën a mel dangay jub-jublu sax waaye loo jub-jublu da ngay dëng parce que meloo noonu waaw xam nga nit boo melul nenn ni bëggu koo woote euh, yàlla ji dalay toroxal te seytaane bu doonee sa kilifa nii rek nga mën a mel donc lii bettu ñu say saaga say xaste yooyu euh, du ñu def dara loolu du def du def dara Barthélémy Dias ndaxte fi mu jóge la ci ki mu jóge la bu fekkoon ku ñu nawloo la wala bu fekkoon ni ku ku ku ku amul njëriñ askan bi la boobaa sax mu mu mu metti ko wala mu mu yëg ko waaye koo xamante ni il est nuisible non ñun nawloowuñ la ñun xale yi ñun ñu yaa ñu mag fuuf mën nga ñëw jur mais bon nag dama ci doon ndawtal nii rek di la wax di la wax nii te di la yëgal nii boo bëggee xam sa bopp demal nga tiim seetu xool sa bopp boo gisee sa bopp jàkk nii ba xam ni yow la jàppal ni tu es un imbécile de premier te kenn du ko naatable bu ñu doon def élection des imbéciles du monde yaay jël paie ndax noonu nga mel noonu lañ la yaree noonu nga màggee ba toll nii te ci loolu ngay dund ndax fenn dundee moo la foofu nga ne waaw fen dundee moom ngay def donc dañ la koy bàyyee rek di la ko concédé di la jàppee comme les déchets publics dëggaate la rek romb dem ndax ci sent mauvais